waa d' accord euh, man la mbay Fall ñu ñooy woowee Baye Fall Grand Caisse euh, keroog waa Benno Bokk Yaakaar ñoo woote ok hôtel résidence de Lat Dior ban woote hôtel résidence de Lat Dior euh, pour def benn congrès ne dañoo bëgg a delluwaat ànd ak Siré Dia pour mu defaat coordinateur bi du Baye Fall moo woote pour jàppale Siré Dia moo def coordinateur du Pape Sarr moo woote pour jàppale Siré Dia mu def coordinateur du Lamine Gaye bu Siré ja moo woote pour jàppale Siré Dia pour def coordinateur léegi ba nu waxee loolu ba Benno Bokk Yaakaar Mamadou Lamine Keita ñu toog ci salle bi mu jël mu jël prince bi laaj ko mu expliqué wax lu leen Siré Dia jàppale ak Siré Dia lu mu def ci parti yi référendum bi ñëpp a daw Siré Dia ñëw jël coordinateur bi ànd ak ñun defal ñun ba ba ba ba yi jeex ba élection yi jeexee ñu bugg ko defaat coordinateur waa kër Abdou Mbow ñëw. indi fa seen i bandi indi fa seen i nervi ne déedéet non non Siré Dia du nekkaat coordinateur xeex fa xeex door fa seen pompe à gaz ban fa dóoree seen pompe à gaz fekk na fa presse bi presse bi jël leen filmer leen gis leen léegi ba affaire bi amee ñu dem ñu ma def ma ñu ñu sotoo ma dóor ma matraque door ma pompe à gaz ba ma demee euh, hôpital ba ñu jël ma yóbbu ma hôpital ñu defal ma certificat médical lundi mardi lundi fête la woon mardi ma des suma plainte yóbbu euh, police commissariat bu première ba ma yeggee première euh, inspecteur Sidibé moom ma entendre ba ma entendre ñu toog ma si inspecteur Sidibé toog waa mu laaj ma ma expliqué ko cas bi nu mu demee mais fii loi dañoo bëgg a laaj ba xam Abdou Mbow dafa nekk pour arkam di dóor nit ñi ay pompe à gaz ñu koy bàyyi si lu mu nekkee wala def na ko fi keneen ak keneen et cetera et cetera def na ko fi Lamine Ngom. affaire bi nu mu mujjee. affaire bi nu mu mujjee commissaire daf ma dañoo téewoon daf ñu ah, ah, garde à pour euh, lundi ñu dem euh, parking euh, gisante procureur. yéen ñaar ñëpp la garde à vue. waaw garde à ñu ñaar ñëpp la garde à vue yoon. Mm-hmm. te ñu parce que dafa indi certificat de médical ma indi certificat de médical. Mm-hmm. léegi garde à boobu après ba nu ñëwee commissaire ne léegi à 18 heures la ñu bàyyi ne comme que léegi nañu bàyyi nañ nañ dem ba lundi ñu xool suñu biir xool nuñ koy arrangé. xool nuñ koy négocier mais Abdou Mbow dañ koo bëgg a xamal Siré Dia papaam la du moroomam Siré Dia kilifaam la du moroomam. affaire bi léegi nu mu mujjee. affaire bi nu mu mujjee lundi dañoo amaat convocation à 11h ak commissaire à première. suba suba incha allahu rabin si kàttanu yàlla. Hmm. waaw parce que instant bi hmm. ku nekk yaa ngi Abdou Mbow fu mu toll nii mu ngi xëccu. Hmm. Abdou Mbow mu ngi def lu ko neex si dëkk bi parce que fii dañuy wax ni kees du ñun ñoo fal Siré ja Siré Dia Benno Bokk Yaakaar ñoo ko téye yëkkati ko wan ne ko yow la parce que ba mu mettee moom doo nga taxaw keneen taxawul léegi du Baye Fall moo taxaw ne damay fal Siré Dia du ah, Lamine Gueye moo taxaw ne damay fal Siré Dia du Pape Sarr moo taxaw ne damay fal Siré Dia Siré Dia ki nga ko ñëpp ñoo taxaw Benno Bokk Yaakaar ne dañuy defaat congrès pour àndalaata Siré Dia mu yóbbu ñu ba 2019 ba Lamine Gueye génnee wayam waa Benno Bokk Yaakaar ne ko déedéet 2019 la ñu bëgg a dem ak Siré Dia incha allah si kàttanu yàlla noonu lay wax ci demee Abdou Mbaw nag